alhamdulilah ñëw leen seen revue de presse lamb àllarbay tey jii la ci gën a fës ci mercredi bi suñu lamb mu ngay ñëw ci combat Papa Sow bi ñu jëm niki dimanche di ñu ne tey jii réunion de sécurité dana am ci suba gi ngir ñu xool nu ñu amalee sécurité ci combat bi am niki dimanche kii di Pape Diagne le ne kii di Papa Sow bu bëggee demaat fi nga xam si ni mooy ca VIP yegg ci kaw yegg ci niveau boobee dimanche faaw mu am ndam ci kaw ki nga xam si ni moo di Siteu bu deful loole mën naa xam ne dootul dem ci VIP yi ñu ñëw ci combat titulaire ak Gorofil bi yaram production di amal la 24 décembre foofee ci arène nationale ci combat Gamou Gueye ak Tapha Mbeur combat boobee ko dara jaalee ki nga xam si ni mooy Jules Baldé Junior moom lañ ciy fàttaliku beneen combat bu ñuy fàttaliku Papa Yada suñu lam mooy caatu fora digganteem ak ki nga xam si moo di Ochod ñaari fàttaliku yooyee yaram production amal ki nga xam si ni moo di Rock Mbalax suñu lam mu ñu xamal ne benn sëram moo génn àdduna foofee ca suñu làmb di ko jaale ak njabootu làmb yëpp ñu ngi koy jaale keneen ku jóge ci combat am ci defet moo di caat bu waalo suñu lam mu ñu xamal ne waa écrit waalo yëpp ñu ngi woon ci ginnaawam muy Alioune Seye 2 di Papa Boy Djiné ki nga xam si ni moo di ñaabu ndaw liiru jaan coach Arona Sall ñoom ko gunge woon ca stade waaye keneen xam si ni tamit gunge woon nañ ko moo di Kalmu Ndour mi mu moo di déggool moo ko yóbbu woon stade la dëgër 2 bu ñuy wax tête de file di moo tax ñu koy wax ndax problème bu ci bëre dina ànd yow gunge la stade entraîné la ki nga xam si ni mooy coach Arona Sall moom mi nga xam si ni mooy coach caat bu waalo mu ngay xam le ne Kirigram Mbagnick daf maa saaga ndaxte dama doon dem di félicité coach sam di Cheikh Ndiaye mu may saaga suñu xam sa cosaan li ñu xamal ne dimanche ba ñu génn ci arène nationale neexul ci ñoom ndax ñaari ki nga xam si ni mooy caatu Pikine ki nga xam si ni mooy Bib Diop da koo daan ki nga xam si ni mooy Aliou Faye Pakala suñu lam mu ñu xamal ne Pakala bu mbuur def na retouram ci lutte ci ñaari fan finaalu na ci ñaari yoon ki ko daan ñaari yoon moo ngi nii di Boy Morone suñu mu ñu xamal ne Boy Morone bu écrit Gana Seras moo jël li nga xam te ni mooy ñaari làmb yi amoon foofee ca teree gaal gi ak foofee ca diwaanu Mbamlok ginnaaw loolu ñëw ci Gris Bordeaux ci digganteem ak ki nga xam se ni moo di Ama Baldé bi muy waaj suñu làmb mu ñu xam ne Gris Bordeaux mu ngay xam le ne Ama Baldé musta am adversaire bu mel ne moom adversaire bu am gabarit bi mu am am am expérience bi mu am am ñi koy jàppale ci wàllum entraînement ku mel ne Serigne Ndiaye 2 mel ne ku mel ne Forza kon Ama Baldé amagul adversaire bu mel ne man moo tax combat bi ànd naa ceeg waa Fass yëpp di ko waaj kon rendez-vous bi la 5 février lay doon ginnaaw loolu ñu sant leen gërëm